maire Kër lu jëm ci wàllu l'opération de déguerpissement Mouhamed Bilal Diatta di askan wi lu jëm ci wàllu suivi action yi. kaama nàmpaay leen kaama kaama dimbali leen jox leen fi ngeen nekk loolu bu noobu la te li leen wax ba pare ñu defal leen ko bu fekkee nañ ko ci wax mën nañu war ki dana woon nax jëf nañ li leen wax am na tali bu ñuy defar daaw ba ne mën na pare ndax anarchie tamit boo xëy fekk chinois yaa koy liggéey am occupation bi dafa metti dafa yàq suuf lépp ba pare ñu boole ko ay mbuus lisaan yi ñu dugg ci caniveau yi dugg ci canal bi boo kii woon tey soo ko dell yooyu il faut xeex ko. li jëm ci wàllu recasement marchand ambulant yi moom nag daal prévoir tabax ay centre commerciaux. maa ngi tabax ay centres commerciaux. waaye tabaxaat ay marché pour ñu mën fa dem nekk fa waaye gis nga da ngay découragé dama yàgg territoire bi mais mon frère territoire bi lañ fa yàgg fii du war a jàpp lépp lu di yàggee ci jaay mon frère dëkk bu ko bëggee defar ñu ngi ci jàppalante je que ni ñun espace benn espace fii parce man maa fi nekk maire en 2022 laata may nekk maire maire bi nekk fekk naa ne sax saako suuf yëpp ñun ñooy seul département xam te ne ñu fi manqué ay période bu bëri amuñu am naa nag moom bëgg proposé président de la république mu jàppale ma ko moo ëpp stade Abdoulaye Wade bële nga ba ñuy stade bële pour département boobu mooy mu mën a am stade. ci fàttali lu ëpp 1500 marchands ambulants tablier daal nañ leen dëgër pii